numérisé man maa ngi koy wax tey ci suba fa ma nekkoon ci benn conférence ma ne leen bi may wut casier judiciaire bi ci affaire pour candidature ak certificat de nationalité li ma daj. ah bon daw fii Casamance daw fële fee ja da lay jàmp. Mhm. waaw bu fekkoon réew mi 2024 waruma woon mën a dugg ci benn site am numéro boo xam ne moom laa ciy dugal. Mhm. mu ubbil ma page ma dugal sama tur sama sant sama carte d'identité sama nangam mu affiché ma sama casier judiciaire mhm. xanaa loolu war na mën a yomb. comme comme lu dañu naan bu ñu la condamné normalement war nañ ko numériser dugal ko ci benn système. Hmm. war naa mën a dugg ci système ma imprimer ko jot sama casier judiciaire fii ma toog su ma neexee sax duma ko imprimer di yàq kayit mais dama koy def ci sama ci sama téléphone wala nangam suñ ma nee danga war a fay cent francs ma jël mobile money yi nii. fey ko mu dem ca fa ñu ko war a fayee. te doo jóg fi nga toog. xam nga loolu dina dina dina dina beesal dina bees hmm. réew dafa war jamono ji moo toll foofu dafa war a fluide dafa war a. mais sénégalais yi féex quoi. mais mais mais euh, Cheikh est-ce que yéen doo leen toog. ah benn bi nag. muy waaw parce que dama fàtte benn poñ. Euh, dama mm-hmm. parce que ñeent laa doon wax ma wax ñett. Mm-hmm. beneen bi mooy panafricanisme mooy intégration africaine. Mm-hmm. pilier la dafa am ñoo xam ni seen réew rek lañ bëgg a toog. mais ñu dañu gëm ni Sénégal kese du viable. ouverture il faut que Sénégal góorgóorlu ba Afrique soowu jant am doole. Afrique am doole ñu mën a ànd. parler d'une seule voix qui qui porte sur l'échiquier international parce que Afrique wax na te Afrique am na unité africaine am na intégration. loolu itam dinañ unité africaine boobu ah. avec euh, la CEDEAO ak ce qui se passe ces hmm. temps-ci. Hmm. mais tey jii est-ce que doo leen toog ngeen ànd ak tiitange. Hmm. parce que tey ji vous suscitez beaucoup d'espoir rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jeunes yi. et ils veulent voir quelque chose de concret à un temps record tey jii est-ce que la possibilité est là. et oui. le plus rapidement possible surtout par rapport à ces jeunes là parce que tey jii euh, liñ leen yéen président du am état de grâce liñ leen yéen dis na hmm. muy Pastef euh, di avenir ñi lëkkaloo ak Ousmane Sonko yëpp bu Ousmane ko ñëwoon au pouvoir day te ñun loolu lañ ko yéenee woon ba bi yàlla dogalee leneen hmm. on est certain que ce pays aurait changé et vite parce que gëm nañu loolu bu yàlla dogalee muy basiru Diomaye fay te lañ ko yéene ce pays aurait changé su dee man la réew mi dina changer bu dee ñeneen ñi nekk suñu ginnaaw parce que xëy na mën na bañ doon ci élection yi mais gëm naa ni li am solo du nit ki. li am solo mooy projet boobu mooy idée yi ñu porté idée yooyu même bu dul ñun ñii ñi ci nekk nga dem jëli ñeneen ñu bees ñu gëm ko créer mécanisme yi ba ba appliquer ko réew mi dafay dem. parce que du ci daray nit mécanisme la yoo xam da nga koy teg. boo tegee mécanisme yi réew dem te réew yi développé wu dans le monde ñun on a fait des expériences man man fu ma togg demul ba tey barewul te fu nekk jànge naa fa xool naa fa gis naa ñi réussir ak ñi échoué te gis naa ni yooyu boo ko appliqué si dans ce pays te jeunes yi ñuy wax les Sénégalais sont extrêmement intelligents ils savent être patients. mën nañoo déglu xaar muñ parce que loolu dafa bokk suñuy valeur yoo xam ne ñu ngi koy perdre dañu doon jàngal ñu ne dinañ la say say waajur dinañ la jàngal ngor dinañ la jàngal <clears throat> jom dinañ la jàngal muñ muñal xoolal li ñu daan dal boo bu buñ la tooñee sax sa yaay ne la muñal rek léegi mu mm. jeex donc ñun mooñ nañu ci mën a xaar léegi on est devenu impatient. oui mais parce que xam nga lu ah, tax. prochain président bi doo am état de grâce ah. xam moom il avait un état de grâce mais projet président bi du ko am. j'ai l'explication xam nga lu tax xale yi ils sont pas devenus lii ñu doon comme ça subitement processus la moo leen indi fii. de déception en déception ay yaakaar yu tas xale yi muñ nañu ba sonn alternance am ñu muñ ni dina baax ñu trahir leen 2000 alternance am 2012 ñu muñ ni dina baax ñëpp amoon yaakaar euphorie début bi tane ñu gis yoon wi commencé leer deux trois années après business as usual politique politicienne ñëwaat ñu trahiraat xale yi xale yi avant dañ leen naan boo añul amoo liggéey muñal yàlla moo la ko nattoo dina mës a baax ñu gëm ko parce que foofu lañ nekkoon ci sphère yooyu. àdduna dox réseau sociaux yi ñëw internet ubbeeku information génn ku mel ni Ousmane Sonko au plan politique ku ne def nga dara ci quelque chose mais au plan politique ñëpp mën koo nangul ni bi mu ñëwee wax ak nit ñi xëy na ñenn daa dañu wax lu yàgg loolu waaye bi mu ko waxee la ko xale yi dégg ci la ñu ne ndekete ñun suñu pauvreté ndekete suñuy jafe-jafe ak suñu manque liggéey du yàlla yàlla defuñu dara parce que ndeke yàlla ba mu la nee. jox naa la xel ak ay nopp ak ay tànk la pare ci yow ne la góorgóorlu xale yi ci la ñu gis ni ndeke li ñu ñàkk njiit yu bon ñoo leen ko yóbbee ci la ñu gis ni ndeke kenn ëppalewuñu alal ndax suñuy ressources yu dul jeex ñu ni lan moo tax jox jotuñu ci ñu ne seeni i njiit kat ñoo mënul négocier ba jox ko tubaab bi ñu yóbbu ko tubaab bi di ko créer ay emploi réewam ñun ñu toog exemple resource ak euh, production agricole yi boo jëlee lee matière première tubaab bi ñëw jënd ko ci ñun ci njëg gu yomb yóbbu ko réewam parce que boo exporté say matière première yaa exporté say emploi après bul jooy naan aw ma liggéeyu ndaw matière première boo yóbbu rek exporté nga emploi yi waaye ñun bu tubaab bi ñooy jël suñu matière première yóbbu te léegi du rek tubaab bi bu doon franc européen rek nga wax Chine moom lay def Inde moom lay def Turquie moom la ñuy def ku ñëw rek tibb yóbbu créer say usine créer emploi sa réew créer produit yoo xam ni booy ñëw jaay ko dafay jar deux ou trois fois la mu waroon jar mais kooku kan mooy problème bi mooy njiit bi xale yi nag dañu dem ba découvrir loolu te xamuñu ko woon avant bi ñu ko découvrir lañ ni yéen njiit yi nekk da ngeen ñuy fonto li ngeen ñu mës a wax du dëgg possibilité am na pexe jeexul yéen yéen a cuune wala yéen a toppatoowul suñu ay problème ndax seen i intérêt bopp ndax njiit yooyu ñoom ak seen i famille ak seen i mbokk ak seeni partie ñu ngi defaru ci loolu parce que système de relation bi ñu am moo leen arrangé ngay exporter rek di am xaalis bi di ñëw ñu lay banque mondiale FMI di la jox ay xaalis ngay jël rek. ñu naan suñu port a ngi def bénéfice. nga naan joxe naa marché public boo mm-hmm. joxee marché public tey jox ko chef d' entreprise naan ko woy maa ngi xaar nga ñëw jox ma ko ci suuf euh, mu indi la sa sa sa sa. corruption sa mm-hmm. mais chef d' entreprise bala def loolu nga defarloo ko tali. la mu la jox dana ko génne ci tali mais corruption lan lay def ci réew. dafay tas réew. déjà Sénégal mi ngi si zone rouge bi ba léegi. tey euh, journaux yëpp moom la ñu. xëyee tey ji te bindoon na livre bu tuddoon la corruption bureaucratique au Sénégal trajectoire ressort et représentation populaire. corruption c'est une catastrophe. réew moo gis mu dellu ginnaaw looloo la fa yóbbu te li tax may li ma si gën a wax temps yi sax waxuma rek les éléments économiques yàgg naa ko wax. les aspects économiques les aspects sociaux li mu yàq ci réew ci nërmeel ko yàgg naa ko wax mais l' aspect sécuritaire. corruption bu demee ci réew ba sax fa mooy indi danger ci réew mi xoolal tey li ñu wër ci affaire terrorisme ak ay problème bu fekkee am na ñoo xam ne mën nañu ñëw ger ay agent public sénégalais par boo amoon ñoo xam ne ñoo war a surveiller suñuy frontières. Mm-hmm. ñu ne la taxawal fii. bu fi kenn jaar nit bëgg faa jaar ger la nga dumóoyu ba mu dugg kooku bu dee kalaatele bomb ci réew mi doo responsable buñ la contrôler lee ay mbir wala yooyu nga jàpp ko wala drogue wala yu demee noonu ñu mën laa jox xaalis pour nga bàyyi wala lu ne corruption mën na koo indi et ça c'est très très dangereux pour une nation moo tax bokk na ci tamit une lutte farouche contre la corruption zéro corruption nag amul fenn mais dinañ ci xeex corruption ba nga xam ne nit xalaatul naa da koy defati ci réew mi. mais corruption Sénégal presque dañ naan njëgum njëgum guro. waaw ah. waaw dañu ko dañu ko ah, dañu ko njëgum guro <laughs> sangam. nangam nangam ko dañu ko banalisé ah, dañ ko banalisé dafa dafa bokk sax. presque mu mel ni dafa bokk si suñu dund. waaw dañ ko banalisé loolu nag mooy li may wax rek bi genre système bu ñu xaw a créé. pour wane ni lii rek moo fi mën a am nii la ñëpp mel. Mhm. mais ñëpp meluñu noonu te ñëpp bëgguñu mel noonu. maintenant un état sérieux bu fi ñëwoon avec un gouvernement sérieux bu am volonté xeex loolu dana won nit ñi ni loolu ce sont les comportements déviants warul demee noonu nga créer les conditions dama mës a dem Viet euh, fële euh, Rwanda may may waxtaan ak ay jeunes pour wan la ni ñuy tabaxee nit ku bees jeunes yi ils avaient à peu vingt cinq ans nekk université ay ingénieurs ak yooyu noonu ma leen di wax seen relation nu ñu gisee seen réew ak affaire corruption ndax ñoom dinañ ko kii mais dama leen sax jaaxal bi ma leen di wax nag ndax fii am na fi ñuy sàcc xaalisu dëkk bi nangam nangam mais c'est quoi ça naka la nit di mënee def loolu. bi mu demee ba loolu bokkul ci structure structure mentale am da xam ni ba mu nekkee ndaw lañ ko ko tàggat. ci njub ci intégrité ci patriotisme bëgg sa réew ba nga xam ne xalaatoo ni nit war naa sàcc alalu réewam mais ñun mën nañ ko def moo tax ñun bokk na ci pour lutte contre la corruption ak bonne gouvernance da nga koy commencer ba xale yi nekkee xale. ci programme d'enseignement yi. éducation à la citoyenneté et au patriotisme à morale comme ni histo-géo di nekkee matière bu sérieux instruction civique morale et éducation. mais amoon na ci amoon na ñun jàng nañu morale ñun ñii xëy na am na lu des ci ñun. Mhm. peut-être loolu ñu jàngoon la tey ba tey xale yi dinañ ko def mhm. mais kenn kenn joxatu ko gëdd. Mhm. donc loolu am na lu bare loo xamoon nañ ko ci def. service militaire obligatoire da ngeen koy delloosiwaat. loolu yëpp mu ngi ci projet yi. loolu yëpp bëgg nañ ko mécanisme yi danañ ko xool lu ñu koy appliquer. am nañ ci xalaat yu bees yoo xam ne danañ ci waxtaan ak suñu alliés yi pour ñu xool nu ñu ko ciy dugalee loolu dëgg nekkagu ci ci bu avenir Sénégal bi ñu bëgg kese la nekkoon mais dinañ ko proposer pour ñu dugal ko ci suñu programme euh, général bi parce que dañu bëgg service militaire boo ko tuddee sax service militaire gars yi ragal. <laughs> service civique. Mm-hmm. mën nga ko tàmbali nga ni. te service militaire dafa nekk suñu loi ba léegi na kenn. si si absolument ba bu état état Sénégal moo amul moyen wu def ko rek mais mm-hmm. bu ñu xëyoon suba. ni dañ koy appliquer mën nañ ko def te du ñu créer ji benn loi mhm. mais ñun dañu ni mën nañu def graduellement benn mooy nga ni dama koy commencer ci bachelier yi mhm. possibilité la lu tax parce que da nga naan ñoom ñooy dem université bu ñu génnee université ñooy dem ENA ñooy génn nekk ci administration publique donc war nga def ci ñoom loo xam ni dana changer seen comportement ba. dañuy am sens patriotique. dañuy bu ñu nekkee inspecteur des impôts du trésor des douanes. Euh, def yeneen fonction publique diplomatie fekk créé nga nit ku bees day jomb du ragal loi bu ñu ko bu ko daan moom mooy jomba jomba euh, violer loi parce que da ko koy créer loolu dañu ni loolu war nañ lu waxuñu ni nag nii nga koy defee tout de suite dañu ni xalaat la boo xam ne war nañ cee waxtaan comme ça bu ñu paree bac laata université di ubbi ñu jël leen benn ñetti weer ñu yóbbu leen ci yi tasaare leen fa indi jeune caporaux yeeg jeune lieutenant yi ñu ñëw yëngal leen ba seen kii forme leen defaraat leen jox leen benn quitus boo xam ni moom nga yóbbu ak sa livret de bac ak sa relevé de note pour mën a inscrire boo ko amul doo mën a inscrire xalaat la rek nag. dañu ni nañ ko ci teg pour wane ni éducation civique bi ak civisme mën ngaa dem ci loo xam ne nii. effectivement mën na créer beneen seen li ñu tuddee le sénégalais de type nouveau. ou le nouveau type de sénégalais bi nga déggoon NTS waaw Y'en a marre doon prôné mais yéen yéen a